tey mënuñoo toog ak ne tey Tombé Sène tey te waxuñ ko xam-xamam tuuti rek. ci ay combat jot a taxaw tey. Mm-hmm. sa analyse bu gàtt rek. Mm-hmm. tey bu ñëwee ci diggante Reug Reug ak Gouye Gui. Mm-hmm. Reug Reug gaa jamono jii mu ngi ci MMA bi le 28 bi sax amal na beneen combat MMA. combat boobu noo ko jàngatee par rapport ak Reug Reug carrière bi def ci lutte simple dugg ci lutte avec frappe amagul defet défaite di bëre Gouye Gui. waaw euh, làmb la. mais boo xoolee Reug rek maak moom dafa am fu ñu xaw a nuroo maa moom. ci bugg lam waaw. xëy na suñu bore bokkul. Mhm. waaye gis nga ni mu buggee làmb man noonu laa buggee woon làmb. rek rek bu dul woon xaalis it dina bore. dina bore. Mhm. parce que da ko bëgg. da ko waaw ci xol bi la ne. même bu bu nekkul woon xaalis it moom dana bore. donc fu mu ne nii bon pour kooku tey boo xoolee lu muy def ci bore simple bi di ko def. Mhm. Euh, nga xam ne bug bug gis nga mbër bu buggu dara automatiquement xam-xam bi day dugg. da koo bugg rek du mais mënoon na nekk fii bëre door ci bëre door bi kalu fi mais dafa dem bëre simple ba nga xam ne léegi. mbëru séeréer yi sax ci boppam moo leen gën a moo leen gën a euh, bugg làmb bëre loolu nag day joué ci làmb ji parce que gis nga mbër muy pratiquer. Mm-hmm. ak mbër boo xam ne day toog ba combat am mu bëre duñu benn. kii bëre at waaw du benn. Mm-hmm. waaw moo kee mooy ub sens parce que li tax mooy yaramam daa daa daan maanaam da da da. day mandi bëre waaw day mandi tax ndax moom mu ngi ci bëre bi mu ngi yëngu. Hmm. donc fu mu toll nii mber mi. guy gi mun na ko mun na am dara ci kaw Reug Reug mais boo xoolee mille sens Reug Reug moo ko ci ub ndax lu muy lu muy lu muy bëre. favori bi daal la yow Reug Reug nga jox favori. waaw man ci sama bopp. Hmm. bu dee sama gis-gis. Hmm. Reug ko jox. nekkul mu mën ko. xam nga waxuma cadre moom. Mhm. waaye dama ne la kuy bore toujours. Mhm. bokk dak koo xam ne daa day toog di xaar combat. entraînement ak bore du benn. bokkuñu gis nga kuy bëre. Mhm. xel mi ak sa yaram day ànd. loo loo xalaat mën nga ko def. mais bu dee kuy entraîné kese te bëriwul mën ngaa xalaat dara. bëgg ko def yaram ba bañ ko. yaram bañ ko. waaw bu boobaa mën ngaa. Boy ak Tapha ñaari njool am na sax ko mën a bokkaat tafatina sut waaye en tout cas boo ñaa gàttul ñaari njool la rek mm-hmm. Mm-hmm. te ñaari xale la vraiment mm-hmm. différence d'âge bi bëriwul donte nag tey euh, mbër yi mag yi tafatinu jot a bëreel boo ñaa bëriwul ak ñoom waaye làmb nee neen du maas dama la combat boobu waaw làmb moom làmb mbër amul classe dañuy fekkante rek euh, man mii gis nga bi ma bëree yàgg na ñi ma daan bëreel yépp bàyyi nañu bi ma commencé bëree dañ ne woon kii paa la nanga ma fekk nag du ma paa parce que sama dentité ay bëre bon sama licence xam nañ ne passé gul woon mais gis nga diggante Boy Niang ak Tapha bu doon bu njëkk ñoom ñooy daq ba ñoom seen combat mooy dàq ci ci ci at bi waaw bu doon bu njëkk laa la wax nii. mais nag comme li ma la wax la làmb ji léegi euh, dafa day waar ba nga xam ne euh, nit mënu koo. Euh, wax lu mu waaw bu mu bu mu leer nañ mm-hmm. mais boo xoolee fu ñu toll nii euh, Boy Niang moo boo boo seetee mun na am mun na am mu am loo xam ne Tapha mënu ko am mm-hmm. parce que Tapha ci boppam tey bu caaxaan jeexee instant yi fu ñu toll nii dafay am lu muy calcul ci làmb ji Boy Niang calculu ko dara bu ko defee nag day am Boy Niang day am avantage ci loolu parce que gis nga mbir bu la ñëw fekk si mm-hmm. yow booy aw yow dangay xalaat fukk moom muy xalaat benn. Mm-hmm. mënuñoo nuroo te fukki xalaat nag boo ko buggee yor ki yor benn xalaat. day métti waaw day day waar. pour moom mu upp la avantage day yomb trop. loolu moo tax mbir bu mag di mbir bu ndaw di trompe mbir bu mag waaw ndax xalaat yi day bëri hii kii warumaa daan. Mm-hmm. waaw su ma daanoo te loolu boo ko yoree ci làmb rek muy diis ci yaw diis ci yow te làmb comme entraînement la noonu nga ko war a jàppee. Mm-hmm. boo ko defee rek du la def jafe-jafe mais booy koo xam ne yaa ko xaw xëy na uppante classe amu fi sax mais day maanaam moo la fekk si. day day day day day joué ci loolu. waaw waaw loolu daal moom moo tax ma ne la. Mhm. seen diggante moom daanaka bul bii mu ngi seen diggante. day waaw day tourné ku ne mun naa daan moom parce que boo Niang du favori. Mhm. Tapha Tine du favori. Mhm. boo xoolee dañoo équilibré ndax li waaw waaw gis nga. 50 50 waaw 50 cinquante noonu la mu nga noonu. mu ngi noonu avantage boo xoolee avantage su temps xam nga làmb nag daf ci am lu bëri loo xam ne itam ñun ñi eh, xëy na mënuñu ko di ko wax ndax ni ngay gis ni eh, loolu itam day jeexal làmb balaa mu agsi mm-hmm. ñun ñii ñun ñi ñuy jox micro ñu ciy wax. Mm-hmm. loolu nañ ko di éviter. di wax làmb te jotagul. waaw nañ ko di éviter non day yàq làmb. Mm-hmm. waaw day yàq làmb. parce que ni ngay gis nii da ngay bàyyi mbir ñaari mbir yi ñuy lambatu. mais bu fekkee ne comme man mii tey euh, technicien tey ma ñëw am lu ma wax rek jëmale ko ci Boy Niang mun na pénaliser ci moom lu bëri wala mu wax ko jëmale ko ci. Tafatine mun na pénaliser ci moom lu bëri. mais mën nga wax bu mu bu mu tegu foo xam ne ku ne voilà justement ku ne normalement dina ci mën a jàngat parce que làmb nag bu bu paasee werante amatul njëriñ. amatul déedéet hmm. dafa bu bu werante amatul rek. Hmm. làmb nekku fa. donc bon dañ leen a boole pour diw mënul diw diw mënul diw. donc bon bu ñuy jël làmb am fuñ ko teg. Hmm. na équilibré ci digg bi rek ñun ñii itam bu ñuy nit itam encore ñu ñuy am nuñ koy tracé ba nga xam ne nit yi daan ci mën a werante. Euh, te ñëpp gis seen bopp daal. jeex na te du feete boor loolu daal moom laa ci mën a am loo xam ne. Euh, mën naa ko ci wax. Bombardier Balla Gaye ñu bëri woon. waaw Bombardier ko. ñi naan Balla dama feebaroon nag yu demee noonu mhm. Mhm. waaye ñu war a bëriwaat te Bombardier moom ku ko xam-xam ne mhm. euh, def na fi lu mu mbër defagul muy nekk noonu sax waaw ñaari yoon roi des arènes Balla Gaye tamit gëm-gëmam ak xëy na sañ sama moo tax tey mu yegg si fi mu yegg si tey ñu war a bëriwaat ñoom ñaar waaw loolu moom euh, ñoom ñaar seen bore faw mu neex li tax mu dana neex mooy euh, Balla lu ko ca daloon du nangu mu dalaat ko Bombardier dafa nekk tànk benn tànk bi daa nekk ci biti mhm. benn bi nekk ci biir mhm. donc bon du nangu mhm. bi ci biir fekk bi ci biti ndax boo déggee ma wax la ko mooy daanaka xam nga lu mu dese ci laam bariwul waa donc bon fu ñu toll ni kooku moom it dina reyante lu tout pour daan pour daan ndax mu amaat yeneen. mu voilà donc bon làmba ja mënta neex. ku wax ne dina neex it du yomb. te bala it daa am lu mu cof. te bëggoot ko jàppaat. Mhm. ndax boo jàpp boo këfee dara mu rëcc la. mu rëcc la bo booy demaat. Mhm. boo ko jàppee du rëcc. foofu la jublu na loolu moo tax nag kuy boo rek moom bi yow nga sooraale xam ne moom fu muy xool du foofu. foofu. Mhm. ku muy bëreel. seetul foofu. waaw maanaam lu ko rëcc moom lay xool loolu moo tax làmbam moom diggante seen diggante ñoom ñaar euh, day metti te ñaari luur la Bombardier nekkul ku ñuy xuus. loolu tax seen bëre di métti. te bala day xuus. day xuus. waaw. Mhm. donc ñu jógee foofu combat royal bi avant combat royal bi sax. Mhm. boo ñaa Balla Gaye. Mhm. combat boobu noonu taxaw donte ñoom ñaar ku nekkee si combat tey. mais ñoom ñaar ñëpp vraiment ay bërikat lañ. boobu noonu. booy ñaa Balla gis nga seen combat. Euh, il mu metti encore comme ni ma la koy waxee rek. parce que gis nga attaque ak défensive la. seen bëre mënta yomb. ñoom ñaar. Mm-hmm. attaque ak défensif la. donc bala bu buggee làmb ji jeex léegi léegi. mën mm-hmm. na ci am lu ko. lu ko ci waaw lu ko ci jot. Mm-hmm. waaw boo ñaayit buy xool ba bala agressé ko. agressé ko. am na fu mu koy àgg dootu fa génn. dootu fa génn bon donc fu ne nii seen làmb ñoom ñaar. Hmm. day day xaw a day waar trop boo degee ñu wax lii nag daa sori. daa sori waaw moo tax. <laughs> <laughs> bi. Hmm. Euh, Modou Lo Ama Baldé. te ko bu yàgg na daanoon naa ko mbapat xale laa woon ñu war a bëri waat ren nag la. Hmm. moom la ñuy ñi di xaar ci combat boobu. waaw muy combat boo xam ne euh, combat bu war a neex la mais mën nañ ko ab foo xam ne du fa àgg. waaw ndax li tax mooy. comme ni ma la wax la daanaka ci diggante euh, Boy Niang ak Tapha. ki nekk ci kaw la. ak ku koy fekki. donc bon fu ñu toll nii. ba boo xoolee euh, Ama Baldé euh, mun na am ci Modou Lo dara. waaye ci kaw mu réglé. mu mu dal daal mu dal. Mhm. bon Modou Lo ci boppam tey eh, Modou Lo lu mu mën. Hmm. man gisaguma ko mu bore ko. man Modou Lo dama ko xam bu baax. moom Modou Lo de. mën man li ma gis man li ma gis hmm. man bokk naa ak moom drapeau. Hmm. li toll ginnaaw drapeau bii. drapeau bu ñu bokk ma man li ma daan gis muy bore man gisaguma ko mu bore ko stade. bokk ngeen tournoi ma ak moom. waaw. fii wala fan. fii nii Dakar stade. Ah. waaw ndef lañ 3 millions la tegoon. Mhm. bokk nañ drapeau maak moom. muy bëre. muy bëre loo xam ne ñëpp dañoo jaaxle. wallaahi am na ku ma toogaloon mu na ma booy bii. Mhm. bee boo nga sooraale ko. Mhm. ma ne ko booy bi bokkuñu bore kii mu ne ah, ma ko bokkuñu bëre al bi suñu diggante rek. bu mais jotoo leen woon bëre keroog. jotuñu parce que balaa ñu jotande. quart de final euh, quart de final la woon mu tase ak jama. jama jama jama sek jama sek. mais jama moo ko daanoon. ci kaw sax. Hmm. daanaka rek. Hmm. Hmm. jël favoriser mu nga noonu waaw waaw bon bon loolu la mën a demee parce que ba léegi. ba léegi daanu daanuwul ci suuf. daanuwul ci suuf. mais comme def ko féete ginnaaw lu ne mu def ko. def ko war ginnaaw njool. daf ko war ginnaaw lu ne mu def ko yëkkati ba ci kaw doo ci suuf lu ne mu def ko mënut a am jël léegi nag. bon ci diggante bi bu ñu defee faux rek. Hmm. parce que làmb ci daa yàgg. bu ñu defee faux pas rek ñu leen kii. waaw ñu arrêté moom jàmba door a daana jàll. Hmm. Euh, ci la daje ak euh, kii mol on. Hmm. defe naa defe dañoo dañoo niil ñoom ñaar. ñu baare leen xamuma euh, ci laa dem. ma finaalu. ak kii laay Njombor. laay Laay Ndangaan. Mhm. ci lañu finaalu maak Laay Njomboor Laay Ndangaan. drapeau Ndefleng la woon bii ngay gis nii ci bunt bi drapeau Ndefleng la ñaar drapeau Ndefleng jël naa ko. jël nga ko waaw. donc fu mu toll nii. Mhm. loolu moo tax ma lay woon ne. Mhm. ku defe ne moo loo door rek la mën. door rek la mën. Eh, boo boo nax nga sa bopp. waaw kon bu ñu demoon si bëri rek rek rek rek. rek kese kese ñoom fu ñu toll nii balaa ñu ci xamoon dara tey. mbir yu ñu koy daan nii wala wala mbir yu muy bëreel nii ñoom ñu dem bëre bëre simple bañ a def doo nga xool. ca la ñuy door a comprendre kan mooy Modou Lo. mooy Modou Lo waaw. Mhm. man du sama mbir du sama dara. Mhm. mais da nga ko xam moo tax. waaw xam naa ko dama ko xam bokk nañu drapeau wax dëgg ma yàgg ko siifur. Mhm. man magam laa xamoon. ok Ibou bu waaw dafa daan bëre moom it. waaw kooku laa xamoon. ba mu wax ma ko wax ma booy bi mu ne booy bi am na sama rak boo xam ne day bëre. Mm-hmm. waaw affaire yooyu waaw donc bon fu ñu toll nii. Mm-hmm. mën naa la wax ne daal seen bëre. Mm-hmm. war na mën a neex. bon mais lenn itam gis nga galaaj yu bari yi day yàq làmb. day yàq làmb ah, la ñuy andi de. non man ma ne xoolal oto galaaj man dama gëmul woon lool nag yow kii. Mm. gis nga man. Mm. billaay wallaay gëwuma ko. gis nga sama borek ñi ma lay wax nii yëpp. Mm. ku ci ne daawoon na indi ay bagage nangam na mais dama lay naan gis nga man yii ngay def nii. man gëwuma ko yëngaluma ba pare butéel yu bëri man gëwuma ko gis nga luy daan mbër ci kër ga lay ne. ci kër ga. mais ci biir làmb ji nii. Mm. loolu yëpp mënu dara mënu fa am. foofu daal ay muslaa daal ngay andi. kese loolu ay oto yu bari yi yëpp la kese eh, lii daan mbër mu ngi ci eh, mu ngi ci kër ga oto galaaj lañuy def ay oto galaaj. mu ngi noonu bon donc fu ñu toll nii mën naa la wax ne làmb mm-hmm. moo amatul waaw man man loolu laa gëm. làmb ci boppam. man moo amatul man gisoo man ni ngay gis nii pour ma seetaan làmb sax. bëriwul baretul déedéet man xanaa nit taal otom ñëw fekk ma fi yóbbu ma ci làmb parce que damay seetaan sama xol bi day jeex te duma ci mën dara bu boobaa nag da ngay toog. Hmm. man daal damay toog déglu samay làmb. Hmm. tedd jour kii ma dem entraînement entraîné ñëw. su ma bëggee seetaan làmb hmm. sama boy bu ñuy bore comme ku nekk euh, arène la. ñoom bu ñuy bore seen entraînement. Mm-hmm. de da booy ñëw di seetaan da ngay doyal. Mm-hmm. ndax da ngay gis loo xam ne doo ko gis euh, arène. Mm-hmm. looloo loolu doy na ma comme bugg du ma gis foofu làmb. man ma toog mën naa seetaan nag parfois di seetaan. Euh, télé. di xool làmb yi léeg-léeg nga gis ci koo xam ne itam wax dëgg fa la sax léeg-léeg nga dem ba kontaan. kontaan waaw ndax da nga na bore bore boo xam ne. wax dëgg fa yàlla bore nii lay war a mel. nii la war a mel. waaw man loolu laa gëm. loolu nga gëm daal. waaw te it gis nga làmb ji mm-hmm. man su ma nekkoon CNC comme mbër yu mag yi nii ni ñu koy doxalee nii. Mm-hmm. danaa ko def ñaari làmb daañu bëre dóor bëre simple. bëre simple. aller retour waaw aller retour lañ koy def dix dix minutes yi. Mm-hmm. bëre simple dix minutes yàlla bëre dóor. bëre dóor ñu xool ñu xool. te lu ñu feeku jar na ko. jar na ko kay ah jar na ko de. cent millions du caaxaan. du caaxaan de benn fan. benn fan cent millions benn ngoon. nga ñëw prix mu def kat appui rek. nga dem rek dem sa yoon. wala nga arrière des saako yi mu ne làmb ji jeex na. loolu dafa yomb de. dafa yomb man dafa yomb ci man torop prix nga jéggi saako yi prix nga jéggi saako yi dàmb mu ne làmb ja jeex na. ñu ne dagg nañ ko lii dagg na yooyu dañoo warul dagg promoteur bi moo ne waroon wax ne làmb laa santaane gisuma làmb. gisuma làmb. Mhm. ndaxte ñii ñi fay billet sax ñoo ñooy gën a mer. Mm-hmm. donc bon nañu góor góorlu xam ne kuy bore moom mooy daan. mooy daanu. mooy daanu kuy bañ a daanu. Mm-hmm. boo tëddee sa kaw lal. Mm-hmm. doo àgg suuf. dëgg la bon waay waay ngir yàlla na ñu xam ne làmb ñu ngi koy yàq. làmb moom waxatuñu làmb instant yi ne nii business. business lañ ko def te làmb ju business gis nga ni nga gis nii. ñun dañoo dañoo juddu fekk fi làmb. teg ko ci yoon. ba keroog man mii ni ngay gis ne dama bëre bëre bu njëkk ba bëre bëre bii. ñaari bëre yëpp amul bu ma ci réer. bëre bu la ci réer. ndax ñu daan bëre dañ ko teg ci suuf ñun suñu bore bàyyi nañ ko. bore doo ni bu muy doore ñëw fii bëre nañ fii ñaari yoon ñetti yoon. waaw waaw. mbapat mbapat bore nañ fi ñetti yoon bu mu ñëwee gis nga ni bu muy njëkk a ñëw fii première tànkam fii dakaar mu ñëw fii Adrien Senghor hmm. ñëpp la daan ñibbi dellu siwaat daanaat ñëpp ñibbi ma joge dëkk ba ñëw ñu wax ma ko ñu ne ma am na benn mbër bu ñëw fii mu ñuy wax euh, Yékini moo mooy jeexal gars yi yëpp ma ne leen ah, mu ne ma ne ko ah bon de dinaa ci bokk ñu ne ah ma ne ko ah waaw man ma ragal du ma ragal samedi ba dellu suñu daje fa maag moom. bëre bu métti. dañuy bore di bore di bore di bore di bore di bore di bore ba ba moom moo signalé ne arbitre lamb ji niil na. wax kay. wallaahi. mu ne lamb ji niil na. niil waaw ñu lotori ñu booba lotori amul kii ay dangeen di bind daal di dugal ci. ci mbaxana ci mbaxana yëngal. génne ku nekk génnee kenn ñu génni man ma jàll. ngeen bëree ba moom mu arrêté arbitre bi. moo def ni arbitre arbitre taxaw mu ne ko làmb ji nii la nit yi xoolal troisième tirage la woon. Ah. bu ñu des fa ba demi final. tirage bi di continuer ba demi final bi continuer du ñu xaar ñoom. <laughs> loolu day la war de père. non parce que taxawuñu. Mhm. bëri loo xam ne dañoo taxaw di seetante déedéet action arbitre buy génn suñu diggante pare na lu ne dugg nañ ci maam moom. ñu niil loolu deuxième fois bi. deuxième fois ñu dellu foofu ci laa ko door a daan ñu dellu si bu ñu dellu am na benn waay bi ma àndoon mu ne ma kii il faut nga bàyyi ko mu ñëw. ma bëre moom ca laa ko kii ñu bëre ma moom xam nga moom dafa doon tiq arbitre dafa suuf la rek ñu bëre bëre bëre yàgg rek. Mhm. ma sigg rek mu mu door ma tàng loxo fii rek daal di ma tiq. Mhm. ma tiqee rek ma wecce ko mu jàll ma ma ma ma ma rantale ko. daan ko daan ko ti la ñu joge nag ñu dem Fatick. Mhm. Euh, drapeau boobu. Mhm. malik fekke na ko. te mhm. mu daan ma foofu. doo ma daal moom waaw moom mu daan ma foofu keroog moom moo Sall ñoo finaalu te pourtant maak moom sax ñoo bokkoon mm-hmm. Fatick ñoo bind woon Fatick maak moom mm-hmm. Mm-hmm. waaw moom moo finaalu woon ak Sallo Sallo daan ko père waxtaan bi neex na loolu xam naa dañ koy dagg rek ba beneen yoon ñu seet si la ñëw écrit écrit ba sax laay ñëw insha allahu rabi foofu laa bëgg li ngay tàggatoo rek tey si Lutte TV par rapport ak tey rek xam nga euh, ñi lay bëggee ñi la daan dégg tey te xamuñu tombe seen waaw man day wax dëgg di leen di nuyu rek. di leen jërëjëf. di leen baal ak di leen baalu ak. waaw ci weeru koor bi ñu dugg ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahiim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal. Eh, yàlla nangul ñu koor gi. Eh, wax dëgg fa yàlla man dama mën di jéeglu rek ndax am na ñoo xam ne xeex nañu ngir man. Mm-hmm. te yëguma ko. donc bon fu mu nii itam képp koo xam ne yaa ngi koy dégg xam ne man Tombé seen moom danga nga doon euh, dunde Tombé mm-hmm. maa ngi lay maa ngi lay jërëjëf di la baalu mm-hmm. di la woon ne lam moo mel noonu bàyyi naa ko di leen di jéeglu mm-hmm. di woon ne nag fu ñu toll nii li TV nii muy def nii yëf yi foofu la fu mu teg baaraamam foofu la bu mu ko dindi ndax mën naa la wax ne li ma la wax nii làmb ji def yii képp koo xam ne danga nekk ci làmb ji ñu lay fekk si di wax ak yow wala leneen. def ma leer na mënoo ci def li ma defut te kenn mësuma seet si. kenn mësuma seet si bu dul Lutte TV. tamit dëgg. ku ñu ku ñu dajal nii tey tey muy wax ci télé bi wala muy wax leneen. Hmm. deful lu ma defut. man maa def lu mu defut. Hmm. bon donc yéen. Hmm. xam ngeen ne fi ngeen jaar foofu la. waaye man nag du ma du ma wonewu du ma dem ci télé wone wone ne man maay diw wala man maa def déedéet man amaloo benn yoon maa ngi liggéey sama liggéey. man laa ma jëpp def naa li ma ci war a def gunge xele yi rek laay def duma ko bàyyi nag ndax man. moo des moo nekk ci sama yaram. xele yi ma yor nii. Mhm. ñoom laay gunge. donc bon fu ñu toll nii mën naa la wax ne. Mhm. wax dëgg fa yàlla euh, nii ngeen jàppoo. Mhm. ah man de kontaan naa ci. dëgg la. waaw kontaan naa ci bu baax a baax di leen di ñaanal mu nekk ay tele tele ak i rajo. amiin yàlla mën na ko yal na leen ko yàlla defal. Eh, directeur bi lu dale ci directeur ba. Mm-hmm. bi ci bi ci gën a ndaw. Mm-hmm. maa ngi leen di ñaanal tawfiix ak wer ak werle. amiin mucc ak muccle. <laughs> yàlla mën na ko yal leen ko yàlla defal. Mm-hmm. defal ko mbooleem jullit. waaw écrit bi war nañoo am ku ñu jàppale. ndax fu ñu toll nii écrit bu ndaw la ñu yor ay xele laa yor fii yoo xam ne maa ngi leen di jàngal bore ku ci ne bu bëree da ngay signé mais mënuñoo bëre mënuñoo fexe ba bëre stade menum kaaw mii daanaka presque ak oligons xëy na moom la di yàlla jàpp te ñooñu eh, xëy na ay nit yu baax ñeneen nit encore ñoo ci jàpp bu ñuy bëre. am na ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi foofu presque ñoo ëpp kaaw waaw buñ ko gënul mën bëre it ñoo ko ëpp. donc bon ñooñu tey fu ne nii war nañ leen feeñal pour wax dëgg fa yàlla ñu xam ne ñii. ñu ngi ci entraînement. kon meeru Dalifort bi tam. meeru Dalifort bi wax dëgg mu ngi def. waa mais mais waa mais des na mu ngi def mais des na. parce que nag surfaction yorul mbër. waaw bu bees bii ñu yor nag moom la ñu bugg a moom la ñu bugg a awaañaa nag mu ngi def moom it ndax nit ki nit ki nag booy wax da ngay wax te yàlla tax waaw man moom man ànduma ak Samba ànduma ak ma waaye ku def ku defal xele yi ma wax ko man demal ni man soxlawuma ku ma defal. mais xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñuy bëre nekk di dëkk bi dëkk fi wax dëgg fa la ku leen jàppale dëkk bi nga jàppale. man it loolu moo ma ci téye man Dalifor gi maa ngi fi ñëw depuis 83 bi léegi. bon xam bon fu mu toll nii Dalifor bi xam naa ko bu baax. waaw bi ma xamee Ndakaaru ba léegi it mosuma dëkk feneen bu dul dalifoor donc man loolu moom a jàpp tey may jàppale xale yi fi ne ndax ku nekk fi nga dëkk da nga war a jàppale ñi nga dëkkal. bu mu mënee law feneen nu law feneen mais fi nga dekk njëkk ko jàppale ba pare balaa nga jàll feneen lii daal moo nekkoon li nga xam ne it bëggoon naa ko ci jàllale ndax euh, wax ji moo xaw kii rek ma fàtte ko waaye nag wax dëgg fa yàlla bugg naa ñu jàppale. waaw bëgg naa ñu jàppale bu baax a baax a baax ñu jàppale waa foor waaw moom rek lañu am waaw.